mbokku internet yi ñu ngi ko fii ci Makkeup mais def nañ ko defee le maire de Makkeup Magaye Gaye tey moo oote fii nii au yi au école yi xam ne tey ñoo fi nekk nii pour jàppale leen ci ouverture bi xam ngeen le deux moo war a nekk ouverture bi ci Sénégal yëpp màkk ñu desu si gannaaw moo tax le maire Magaye woote gis ngeen li indi ci ay bagages yoo xam ne jagle na ko école li xam ne tim préfet ou bien mën nañu wax sax tey ministre bi demandé na ko collectivités locales yëpp ñu def ko mooy mairie yi def ko seen gox yi pour accompagner écoles yi moom itam euh, def na ko parce ñu fekk nañu fi ay lave-mains fekk nañu fi ay gel fekk nañ fi ay thermoflash ak lépp loo xam ne ay masque la école di ko soxla xale di ko soxla pour ouverture bi mu ngi nii yoo xam ne tey fekk nañ ñu koy fii nii cérémonie bi ñu ngi koy def fii ci biir mairie bu mag yëpp ànd ceeg le maire ak directeur yi xam ne ñoo fi teew bi xam ne am na ko fi teew muy codec bi xam ne moo nekk fii ci biir yëpp ñoom ñëpp teew nañ fi tout simplement pour jël bagage yi demee nii jagleel ko pour le deux ñu war a nekk kon mën nañu wax daal Mbacké moom nee na le deux lii concours yi dem ci kanam tuuti rek ñu déglu le maire ak ñu mu àndal ak le CGE bi fi nekk ak CODEC ñu wax ñëw itam nan lañu nar a préparé pour gunge maire ci mbir mi xam ne moom mooy ouverture bi war a am le deux di ginnaaw suba kon ci kanam rek mu jox la li xam ne moo am fii ci Mbacké jëf mbokk yi comme ni ma la ko waxoon ci gannaaw ñu ngi fii ci Mbacké ànd fekk le maire Magaye Gaye ak équipe Euh, ñu fekk fii CODEC mu ngi fi toog moo fi teewal tey mën na yem IEF teewal fi IA toog fi ministre yi war a war a li xam ne tey euh, euh, maire war na ko jël jagle leen ko xam ngeen ne reprise bi le 2 la na ba pare la maire moom des si ginnaaw ci département comme ni ko ñëpp defee moom itam defee na ko noonu fekk nañ fi bagage yu bëri mais itam nag bi itam teew fi ñoom itam am ci kàddu guñ bu na mën a wax pour wax nag parents d'élèves yi pour ñu mën a bàyyi xale yi ñu ñëw jàng yi le loolu rek dañuy ñëw rek dalak la maire bi xam ne tey moom lañ fekk muy la maire Magaye monsieur le maire ñu ngi leen nuyu waaw comme ni ni ñu ko waxee ak ni ñu ko gisee loo xam ne defe nga ko fii sa commune lan ak lan tey nga génn sa budget ak lan ak lan nga génn ci ay bagages teg ci ko taal bi pour jagleel ko tey directeur école yi nekk fii ak sa doom yi xam ne ñoo nekk ci sa commune pour le deux ni ko commune yëpp ootee ni ko ministre bi waxee njàng mi war a am sa commune est ce que ngi ci ñu wax ñi nan nga dox mbir mi. salaamaaleykum mbokk yi di ñaan koor gi ñu génne ji nekk ci àddina bi. amiin amiin yàlla ko fayal la. ok ñu ko am yàlla na ko yàlla saafara ñu ko amatul yàlla ko yàlla xaj. dañoo ñëw fii ci Makka fa am ñu génnewoon ci suñu biir jagleel ko suñu doom yi jàng. waloor bi nag dem na ci un million sept cent mille. Mhm. Euh, ñi nga xam ne ay jumtuwaay la yoo xam ne ñun ñu sasoon la yëpp. mën nañoo matal lépp waaye lenn lu ci nekk am na lu ñu ci tàmbali. Mhm. lu mot nag yàllaa ko am. Mhm. doomu aadama am dafay solo. mooy bagage yi nekk bi mhm. jënd nañ bagage yu bëri. même capitaine Bari sasoon nañu ne war naa pompe école yi. kooku matuwaay ba ca war def nañ ko ci. en tout cas daal lii nga xam ne sasoon nañ ko commune Mbacké. maag équipe municipale bi. waxuma ne lépp waaye li ci ok léegi nag ban message nga am pour euh, parents d'élèves nga yaay maire mais di parents d'élèves nga balaa ñëw sa studio bi xam ne moo war wax ci turu parents d'élèves yi mais ban message nga am pour wax ko population bi tamit ginnaaw enseignants yi def nañ seen rôle. maire bi def nañu seen rôle léegi des mooy xale parents yi jël seen i doom yóbbu leen ci yi ban kàddu nga am pour wax leen ko pour ñu mën a xam ne la deux lépp mat na lépp yemb na war nañu mën a ñëw indi seen i pour ñëw jàng si. daanaka jafewul ndax ëllëg ëllëg xele yi la hmm. kon ñun ñi nekk ci kanam xele yi di leen jàppale hmm. président parent délégué ñi nga xam ñooy way diga délégué ñoom ñëpp nañ takku taxaw sàmm xele yi hmm. di leen yóbbu di leen jën ndax xale boo ko ne demal jàngi rek te toppatoo ko mën naa jàpp fu leen ñëw mën naa wàcc ci école yi di ñibbi si mën naa jàpp fu leen ñëw njàng mi moom ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp ndax ëllëg ëllëg réew mi xale leen taxawul ëllëg réew mi mën naa suuf fekk ñun ñi leen waroon a taxaw ñoo leen taxaw kon ñu ngi gërëm ñëpp di leen sas ne ñoom ñëpp ñu ci bu kenn seetaan parce que lii lëmb ci àddina bi liñ yaakaar ne moo koy defe rek mooy lu ñu def. Mhm. ñu doon jox jox foqal yi ñu am ñu a rafetee. ok ñu ngi ci suñu jëmmi a rafetee. jàngi rek bàyyi mu dem du. nañ ko topp mu àgg. nañ ko topp mu àgg. incha ma jëlee euh, CODEC tey teewal fi IA mën nañ ko teel fi inspecteur ministre te yaa ngi fi teewal mais tamit nekkal directeur école yi ak enseignants yi xam ne ñoo nekk fii ci commune Mbacké tey le maire li liñ ko sasoon si CDD bi xam ne mu amoon Koungheul je crois que nee na matul lépp mais ku gis table ji rek war nañ xam ne lépp liñ ko sasoon def na ko tey nga gis ñu war a jël mbir mi teg ko sa loxo ci kanamu président parent d'élève bi lan nga ñu mën a wax ci li xam ne teg ci loxo tey. waaw Mamadou Makhtar Sarr maa ngi lay gërëm. Mhm. di nuyu ñëpp di juutal ci nuyoo bi monsieur le maire. Mhm. ak euh, conseil municipal bi yëpp. Mhm. di ci teg euh, ñi nga xam ne ni mooy parent d'élève ñëw fi teew teew fi tey. pour euh, réceptionner bagage bi nga xam ne nii war na dem ci école yi. Euh, ñun euh, wax dëgg yàlla suñu diggante suñu rapport ak suñu maire. Mm-hmm. rapport yu rafet la. puisque du lii rek lépp loo xam ne ni lu jëm ci école la. Mm-hmm. saa bu ñu ko sollicité da kaa def. te da def da matal sëkk. lii expression de besoin bi nga xam ne nii waa inspection ñoo ko joxe. Mm-hmm. moo fi nekk waaye ba ñu inspection joxe expression de besoin sax ñun dañu ko majoré. koo wax ne ne instruction nangam la ñu wax waaye boo ko mënee def lii moo gën. yokku ko boo ko mënee yokk kon bagage bi fi nekk nii. Hmm. expression de besoin bi nga xam ne ni jox na ko monsieur le maire. Hmm. dañuy wax ne carrément dafaa yokk. def na ko ba mat waaw mat na sëkk dafa naan matul rek waaye. Hmm. lii leer na mat na sëkk ba incha allah teg na ci lu bare. ñu kontaan ci nag bu baax a baax. parce que ñu ngi jëm ci euh, ubbite école euh, ubbiwaat. le deux prochain. muy loo xam ne nii nag ñun ñëpp ñoo ci war a bàyyi xel ñun côté jàngalekat yi moom fagaru nañ jàngalekat yi ñenn ñi ñëw nañ am na ñu des ñiy xaar nag ñoom mooy euh, arrêté préfectoral bu leen indi mm-hmm. euh, parce que bataaxal day am ay bataaxal yoo xam ne ñooy génn mm-hmm. siiwal ku nekk fii war na mën a jóg fii dem fee mm-hmm. bataaxal yooyu la xaar ñoom ñëpp nag informé nañ leen te ñëpp danañ ñibbisi insha allah bu ñu ñibbisee bu soobee yàlla dispositif bi dañ ko yëkkati comme ni nga ko waxee nañ ko séddale tey tas ko yóbbu ko ci école yëpp comme ni ko inspection joxe ndigal mhm. suñu paree nag jàngalekat yi moom kenn gënu leen a mën a relever le défi Sénégal booy dem bay wax sacrifice mhm. ba dugg ci enseignement nga xam ne ñoom rek ñoo mën a sacrifier wu dëgg la ñun pare nañ sacrifier suñ bopp jàppale gone yi pour ñu jàng mën a def examen mhm. ci loolu nag dañ ciy wax message dañ koy lancer jàngalekat yi mesure ñi nga xam ne dañ ko joxe te àddina bi yëpp d'accord ci waa organisation mondiale de la santé d'accord ci ni lii képp ku ci ko def mën nga mucc ci feebar nañ koy def à ci école yi xam naa ne nag dana gën a métti ndax fi ñu gën a ragalee affaire bi mooy au niveau de la communauté élèves yi bu ñu ñëwee école dispositif bi ñu teg bu soobee yàlla beneen élève bu fa am benn benn problème yaakaar nañ ko bu baax parce que fii loo fi gis lii am na gel am na masque am na thermoflash am na savon ah, lépp mu ngi fii loo xam ne ni mën na xaar aar xale bi mhm. ca école ba mhm. léegi nag diggante école ba ak kër ga moo nekk jafe-jafe ak ca kër ga loolu dañuy wax parents d'élèves bi nañ ci waxtu di yee seen doom yi ñun danañ ci danañ ci bokk mais ñoom ni ñu jàppale ci yeete bi pour wax xale yi bu ñu déparé seen kër bu ñu jàdd fenn dañ mhm. def directement école bu ñu nuyu kenn bu ñu jàdd fenn ok bu ñu ñëwee école dispositif bi ci war ñun dañ ko gi ni ñu leen tàggatee école xëy na école euh, kër ga bu ñu am gel mais danañ am saabu. Mhm. nañuy raxasu suñu génnee kër gi bu ñu duggaatee nañuy raxasu. loolu daal lañu am na loo xam ne nii wax dëgg yàlla bëggoon nañu ko ci sànni. Mhm. di gërëmaat suñu maire bu baax a baax. encore une fois parce que lii jafe na waaw ñu ne la defal lii. nga defar ba defar nag ay dispositif defar ay ay bar. très bien yoo xam ne nii moom mooy recevoir kii bi. Mhm. parce que lii dañ ko commandé pour 15. laam ne yëpp. kon lii nekk fi yëpp bii dañ ko teg nii seulement rek mais yëpp ku nekk dina ko mel nii. ok c'est bien ça. waaw loolu école yëpp lañ koy defar. kon tant en tant directeur en tant que euh, tey yow moom sa xel dal na que ne le lu ma nekk la ci mag yow. waaw mën na nekk le 2 mën nañ commencer. parce que déjà am na école yu bëri désinfecté nañ leen. Mhm. directeur yu bëri dem nañ euh, taxawal comité veille et yi. Mhm. école yi aussi désinfecté nañ leen war nañ mën a commencé cours yi. lu mën a nekk la kooku ko rek moo ko wax monsieur Diallo lu ci kanam ci kanam maire mais nag ci kanam ko xam ne tey moo fi teewal parents d'élèves yi muy yow sëñ bi ñu ngi leen nuyu baax. comme ni ma ko laajee maire maire yi wax na li mu am indi na ko codec bi eh, war a jot bagage yi xam ne moo war dem ci école yi nee na jot na li xam ne romb na ko sax li ci des mooy li jëlee xale yi ci kër ga indi leen ba ci école bi te duñ ànd mbooloo mais ñu ànd benn par benn ñi di surveiller comme ni ko maire bëggee parce que liñ ko santoon yëpp def na ko ba romb yow ban message nga am ci maire metti ban message nga am sa mbokk yi xam ne tey wala sa naataango parents d'élèves yi xam ne ñooy papay xale yi di yaay xale yi pour ñoom itam ñu def seen wàll comme ni ko directeur demandé ci kër gi waaw moom sax sax ñu lay nuyu. Mhm. di nuyu mbooloo mi fi teew rawatina monsieur le maire. Mhm. ñu ngi euh, sant bu baax. ci taxawaay bi nga xamante ne ni monsieur le maire taxaw na ko ci commune Matoya. Mhm. Euh, di rafetlu li nga xamante ne ni def nañ ko. di wax ne ñoom li leen waroon def nañ ko muy nguur gi. Hmm. ba ci euh, monsieur le maire. Hmm. bagages yëpp def nañ ci seen lay kattan ba yëpp disponible na pour ñu mën ko yóbbu ci école yi. Hmm. su ko defee nag li may lancé euh, parents d'élèves yi. ak euh, CGE yi. mooy il faut ñoom ñoo mën a mottali liggéey bi nga xamante ne nii. nguur gi su na ko ba mu yegsi ci loxo maire yi. bañ jébbal ko. école yi. su ko defee parents d'élèves yi ñoom ñoo leen war a accompagner jàppale xale yi. ñuy dem école te du ñu jàdd fenn suñu bàyyi ko école it ñu bàyyi leen xel ba ñëwaat ci kër gi. li nga xamante matériel bi nga xamante ne ni joxe nañ ko. ñoom am nañ ci rôle bu mag boo xamante ne war nañ ko ci suwee. surtout APE bi. Mhm. ñoom ñëpp dañ leen di ñaan ak école bu mënta ko doon. Mhm. suñ leen jébbalee bagage bi lañ leen wax ne loolu lañ ko war a def. ñu dimbale maire dimbale waa dëkk ba dem def loola nga xamante ne ni moom lañ leen wax ne leen moom la ñu war a accompagner xale yi. Mhm. pour ñu mën a jàng ci situation boo xamante ne ni bu normal la. Mhm. buñ paree ñu delluwaat kër gi. lii daal ñun ñu ngi koy rafetlu bu baax Maodo Mokhtar Sarr. di wax na yéen kon donc ni ma ko laajee directeur rek laa la koy laajee yéen parents d'élèves yi pare ngeen lim mbébét bi maire am pour que le deux bokk ci dëkk yi xam ne. pourcentage bi war a ñëw ci classe yi dina nekk 100 pour cent pare ngeen pour ànd ceeg ñoom pour loolu nekk. incha allah. pare nañ pour loolu am. Mhm. comme ni ñu ko bëggee. ni ñu ko bëggee waaw. école yi daal li ñu ci war a defee def nañ ko nettoyé nañ ko. nettoyé ngeen lépp. def nañ lépp ba mhm. pare. Mhm. bu bagage yi yeggee daal lenn lu ci nekk fa mu war a nekk euh, moment fañ ko war a def dañ ko fa def. ok toppatoo lépp ba xale yi mën a jàng ci bonne condition. ok enseignants yi ñëw itam fi ñu war a nekk yëpp jàppale ngeen leen bu ñëw du am benn problème. waaw loolu it am na. enseignants yëpp balaa ñu ñëw. kenn ku ci nekk fi nga war a nekk defar nañ ko bu bi ñëwee dañu ñëw dugg. donc am na ay enseignants yu des. Mhm. waaw waaye jàpp nañu dañu incha allah dinañu incha allah waaw muy kàddu xam ne CG moo ko wax nag la ñu ñëwee tëj ak maire monsieur le maire dégg nga ñoom ñëpp par nañ accompagner la ci mbir mi rafetlu li nga def bañ la laajee benn dangay nga def ñett tout simplement bëgg sa commune bëgg sa gox bëgg mbir mi jëm ci kanam maa ko fi def ginnaaw ci mbir yi comme ni ko directeur waxee nga yokk ci la xam ne ñoom wax nañ ko yow ci mooy ñoom ñoo baax rek. Mm-hmm. mais li ma def matu. yàlla rek am lu man mm-hmm. dañuy jéem rek. te danaa gërëm équipe municipale. Mm-hmm. su ma gundax xataaloon. du ma mën nii. waaye yàlla baax na ñun ñëpp ànd nañu ci def. message bi may jàllale nag. bokkul ci lii. waaye daanaka ci la ndax balaa ngaa jàngi ngaale. ngaale ko équipe municipale bi. diisoo na ak ñoom jënd naa dix tonnes ceeb. c'est bien ça dix mhm. Mhm. ok moo bëggoon nag bu lii jàllee. Mhm. ñu def pexe. ci commune bi. kii du du du bokk ak du bokk ak aide alimentaire bi. bokkut ak boobu commune bi moo ko def. commune bi moo jàppale xale yi loolu tamit jàppale parents d'élèves ok waajur yi mhm. am na solo trop loolu moom lu am solo la lu xam ne tim lu ñëpp war a bàyyi xel la parce que tim balaa ngaa jàngi dangaa war a biir bi da fees euh, santé war a am léegi war a am pour boo dëggee ci classe bi du am benn problème kon dix tonnes yooyu noonu dina ñëw accompagner ñi nga xam ne ñooy kilifa bi tim lépp lu fa war a mën mat na mais duñ ñëw rek actualité dafa am lu xew ci département Koungheul yàgg nañoo xeex yi ñëpp xeex ngeen ba démb ñi dégg na cas am a a a dégg di wax mu ne jàngoro bi ñun ñoo ko ñemee mais jàngoro bi ñun ba mu récolté rek ma woo. Mm-hmm. na ko wax nga wax bu rëy. boo xam ne waroon ñu koo tas avant nga koy mu ne ma lu ma ne ko li ngeen ñun ñoo ñu jàngoro bi te jàngoro bi ñu mu ne ma mbooloo la jàngoro bi bëggatu ñun kenn mën ñoo traité mu ne ma tey boo demoon sa kër ñu ngay attaay ñu ngi ci grand place ñu ngay dam yi ñu ngay bël loolu ñu ngi koy ci loolu rek la jàngoro bi kon li may lancé commune bi ak département bi mooy ku ne la sangul sa taar la comme dañ ne jàngoro moom ñu gën a wéetee mu gën a néew doon waaye waaye ñu ñu sàmm ñu kenn bañ waaye dajal taw kenn bëgg ko kenn bëgg ko sax man daal li may laajte mooy nañ wéet tuuti tuuti jàngoro bi yàlla ko yàllaa ñu fekk mhm. wax nañ ne ñii borom xam wax nañ ne wéetaay rek moo ko fi mhm. kumba kumba rek rek moom am na ko. kon nag jotaay moom ñu ngi ci muy département bi muy région bi fi xew na yàllaa ko ci indi yàlla na ko ci yàlla jëlee. yàlla nañu ko yàlla téyel ko bu mu yàqal dara. xes na dikk nag. Mm-hmm. la président waxoon gan bu dikk te demul ngay jiyam noo dëkkee moom. c'est extraordinaire. ndax xeex nañ xeex mu ngi nii. waaye nag dikk bi yàlla indi na ko waaye yàlla na ko yàlla saafara <laughs> mhm. te saafara ko département bi région bi adduna bi yëpp daal liñ bëgg daal mooy nañu wéet barki dee mooy njaay damaa jox ma ne xanaa koor ak ren yàlla mën nañu ko nangu mhm. ndax gàttu laa mi gàttal taal te loolu feebar bi moom rek loolu moo ci gën a nekk saafara mhm. sa tànk na gàtt sa làmmiñ gàtt soo ko defee rek man kon ñu ngi laasi daal département bi région bi adduna bi yëpp nañ ñeme wéet ñëw ci jéem dund ak moom ok jërëjëf monsieur le maire Maguette Gaye loolu moo nekkoon li ñu ñëwoon jëlal ko fii ci mag yëpp fekkoon fii CGI yi parents d'élèves yi comme ni ñu ko waxee kilifa fi teewloon di monsieur Serif moo leen fi teewloon ki ñu fekk monsieur Diallo mu teewal directeur yi teewal ko rek mais tim teewal sax mën nañ sax IEF tey moo ko teewal fii ci kàddu yu rafet yi xam ne yëkkati na ko dalal xelu askan bi dalal xelu parents d'élèves yi lii lañ ñëwoon pour jëlal ko ci mag yëpp ak monsieur le maire lu xew rek lu ci génn loo xam dana ko def ba mu sës comme ni ko directeur waxee mbir maa ngi noonu kon parents d'élèves yi nekk ci commune Maka Yop na ngeen dalal seen xel comme ni ko seen représentant waxee képp ku am sa doom le 2 8 na ko fekk ci école ba lépp lu ci war dana ko def jàll eh, nee na lépp ñoom itam loo xam ne war na leen ñoom danañ ko def kon mbir maa ngi noonu loolu la ñu ñëwoon jëleen ci Maka Yop di leen jàll pour ouverture bu am jàmm la 2 jërë ngeen jëf waa Maka Yop distance bi tuuti. waaw un mètre. un mètre